bopp saaru luqmaan alayhi salaam luqmaan nag am na ñu ne yonentu la waaye li gën a wér daal ab hakim la woon kamaal luqmaan al hakim mën nañ commencé ci bopp saar bi rek xisaab nadiru nadir ibnu xaaris boobu ibnu keldata sortu Luqmaan lañ ko tudde waaye moom saar yu makki tun ko jag makka la ci saari makka yi la wàcci yi la bokk daayiman li koy li saxal dana saxal kenn yàlla gi mooy tawhid waaye dana saxalit al nubuwatu wa risala waaye dana saxalit be dekki de gëm alaxira yooyu nga xam ne mooy xawaayid mooy xawaayidul iman mooy xawaayidul aqi mooy aqida waye moom saar wi arbaun wa salaasuna aaya fanweeri laaya la ak ñeent buur alif laam miim nga am ñetti firkaay dama ko tàmbal alif laam miim boo ko yàlla xam lan ke nambu de mu ne tilka yooyu leen ayatul kitaab yu may la ay téere ba alquran ci ay turam alkitab alaakin bari aji xereñ moom ju téere bi hudan jub la wa rahmatan yërmaane la il muhsine ñaal way rafetal ña ma ña nga xam ne yuqimuuna salaata dañuy taxawal julli wa yootoona zakata ñu joxe asaka oom te ñoom bil axir ci àlaxir dikka àlaxira hum ñoom yuuxu nañ ko xoolu am nañ ci kóllëre yaqin nañ ci am ne àllaaxira dana ñëw ulaayika ñooña mel ñooña gaay mel noona ala hudan aji lekk nañ ci kawam njub ñoo tegu ci njub min rabbihim gu tukkee ci seen borom wa ulaayika ñooña gaay hum ñoom al muflihoona ñoom di way texe de laa yooyu daanaka moom la huppee woon melokaani julli ñi ca baqara moom la baal taxaat mu ne wa na ci nit ñi nag man yastari kadana mu jaay kadana mu jaay laawal hadisi foom waxtaan de ñu ne laaya ji mi wàcc nadiri ibnu haari ibnu kaldata dafa daa dem xayrata ba di jënd xibaar yi kay jënd dama jënd kon kay jënd foom fa foom waxtaan ba di may jënd xibaar yi xajam yi bu dikkee di ko waxtaanal xuraysin ne muhammad dafa leen waxtaanal ay xibaar rek man ta maa ngi leen waxtaanal xibaaru mu di de ñu ko cay fay de loolu moo yàlla wàcce laaya ji am na ci ni ñi ko ñoo xam ne seen melokaan mooy naa fekk dañuy jënd foo am waxtaan bu ñu di ko tegal nit ñi pour gàllankoor nit ñi ba bëri nit alxuraan de waaye loolu ba léegi jamono ju nekk ak naka koy defee ba am na ñoo xam ne ba léegi jamono ji dañuy def dañuy def ay programme yoo xam ne dañuy dox digganteeg nit ñi ñu jàng alxuraan dañuy dox digganteeg nit ñi jàng ñu déggal alxuraan digganteeg digganteeg jaamu yàlla sax dañuy toog ba waxtu woo xam ne waxtu jaamu yàlla la ñu er ñu kër yebeen ñu kër am fo wala gàllankoor nit ñi yenn mag ñu daay nit ñi ak gone yi nga xam ne xamuñ fu ñu jëm wala série yi bu salsal yi nga xam ne série yi nga xam ne wala ñu teg ci télévision yi ci suñ télé ci télévision yi ak ci média yi nga xam ne dara ci amul njëriñ du la yokk ci zahir du la yokk ci batin doo ci xamee xam-xam bu lay yokk ci sa wàllu àddina doo ca xam-xam bu lay wàcc yokk ci sa yàlla yàlla xira tar yàlla rek ngay fookare te ñooñu nag ñoom xaalis dañ cey wut dañuy wut dañ koy jaay dañ cey wut xaalis seen liggéey la télé yi télé yi dañ cey gañe ña koy sooy dañ cey gañe waaye ñiy seetaan ñoom ñooy perte loolu daf daa bokk ñu ne loolu tax laay ji wàcc yàlla wàccee laay ji de Muhammad dafa leen waxtaanal ak ay xatta waxtaana arak loolu yooyu man sama waxtaan leen yi de yàlla wàccee ñu ne déedéet laay ji li muy tekki mooy jënd ay chanteur yu ay waykat yu góor ak waykat yu jigéen mooy musique am na ni ñoo xam ay ay ay ay jabe ay jëbeer yu góor yu jigéen ñu leen wayal di leen santeel loolu it daganu di dafa haram de lawal hadis caaxaan rek la laay daal di de kon laay ji kon nii lay tëddee danga naan ko mina naasami man yastari na yontu na daganut jàngale eh. way daganut jàngale eh, way santé daganut jënd ko seen jëg ya dafa xaraam musique dafa haram mutlaqan kii ji jàngale musique dafa haram jàng ko dafa haram métier ko dafa haram alal joo xam ne ci musique dañ ko jële dafa haram de ta jaamu yàlla jaamu yàlla du ko nangu de ndax inna laa tayyibun laa yaxbalu illa tayiban misik lum lum misik misik lum siiw siiw ci say nopp lum bari bari ci say bët lum xew xew ci sa jamono rek képp koo méccoo rek am na mécc mu xaraam ndax yàlla moom lima mu xaraamaloon démb nit ñi bëgg ko tax mu daganal ko xaraam na rek moo tax képp koo xam ne ngay fàggu ci misin nga ko xamee yaa ngi fàgg xalal ju lewut de loolu mooy dëgg ndax yàlla ko wax ak yonentu ñoom seen wax amul teggi de moo tax mu ne laa yahilu taalimul muqanniyaati wala na du jagan jàngale ay sante si góor waykat yu jigéen ñuy sante jënd leen dafa xaraam seen jëgg dafa xaraam de kàddug jigéen sax mu koy yëkkati ci way di tudd yàlla la sax dañ ko sib dañ ko bañ la haram la moo tax sikkarkat yu jigéen yi sikkar ña ngay def la yàlla bañ de ca kaw kàddu barab jigéen war ta yëkkati loolu yonentu nanguwul koon suñ mag ñi baax ñi nanguwuñ ko jamono la xaw rek loolu yëpp nag li ngi na ma sànq ah? an sabilillahi wanis diine yàlla ji da ngir réel nit ñi rek diine yàlla de ba nit topp diine yàlla ji bi xayri helmin te diine yàlla ji kenn du ci sànke ci xam-xam moo tax mënut a nekk ci lu ñàkk xam-xam rek moo koy waral de moo tax ma ne def ci bi xayri helmin waaye loolu tënk ba bi xayri helmin amul ma foom de ndax mënoo sànk nit ñi ci diine yàlla ca ko ci xam-xam bi xay reel ci lu dul xam de ñàkk xam rek waral loola maanaam ña koy def xamuñ nit ñi koy nangu yit xamuñ de waaye taxisuha ah waaye taxisuha ñu jàppale a yàlla ji nag usaan ay caaxaan alxuraan ji nag ñu koy def fa ñu koy yëjjide di ko foye di ko def di ko di ko di ko alxuraan kenn du ko foye kenn du ko yóbbu ci làmb kenn du ko santé kenn du ko way de usaan ci ay caaxaan de yal ne ulaayka ñoo ne la gaay mel noona def loolu lahum war na ci ñoom azabun mbugal muhinun bu di borom ak doyadal mburi mbugal moo xam dafa leen doyadal de mbugal ma ci boppam doyadi hut waaye mbugal ma mooy doyadal seeni borom ndax mbugalam yàlla mënut a doyadi moo tax azabun mu mbugal mu di borom ak doyadal seeni borom de ñiñ koy mbugal dafa leen dafa leen doyal ci mbugal ci mbugal ma boo newee saa tuut laa dem jàngal nga nag alayhi ci moom waa jooju nga xam ne moom dafa jàpp ne li yàlla mën naa xelam lum dëpp xelam rek baax na boo ko jàngalee alquran yàlla ji nag laaya yàlla ji du ko nangu de way saa tulla nem ci moom ayatuna alquran suñu may laaya yàlla yi wala mu dëddu wane gannaaw mustakbir mbir mi aji rëy rëylu de boo ko waaye nag kaay ci yàlla mu rëy naa la yow da ngay waaraate rek yoon alquran ñun lay lay de moo tax léeg-léeg sànq nga gis oustaz yi nga xam ne ñi nga yàlla yàlla nattu yàlla yàlla yërëm leen yàlla nattu bañ nekk ci télé yeeg média yi ñu boole nag ay ñu boole nag ay ay ay ay ay ay ñooñu ñu boole nag ñi nga xam ne ñoom seen ah, dañuy dañuy animé animé ay animateur animateur yoo xam ne xamuñ dara ci lislaam ñoom sax ñu mën naa am sax mbokkuñ fatiha léeg-léeg ñu ñu ñu ñu ñu doy dal yooyu de doy doy doy léeg am na ci ustaas boo xam ne. animateur fa ko laaj ne ko ndax musique dagan na dafa ndax musique ah, ah araam mu ne musique ko dagan mu ne ko ah moom la la moom la la borom télé bi fayee de mu kon xam nga loolu ustaas boobu du ma du ma ta waxal yàlla ndax dañ koy boole koo xam ne moom Pape Cheikh koo xam ne moom xamul dara ci diine baayam ba baayam jàngalu ko woon alquran moom fool ak la xam léegi ne yow nga jàngal alquran ni mu fooree xam ca dara mu boole ak benn waay boo xam ne moom xamul dara ci diine mu léegi ngay sabati diine ji yooyu yooyu baaxul loolu léegi loolu toroxal loolu toroxal diine la de te ay seen bopp la ñuy toroxal mu ne ko ah, ba mu nekk nii moom ñi mu wax ne musique xaraam na mën dañu war a te xam ne musique te moom ki koy fay borom télé bi li ma yëpp ci eh, fecc ko ci boole yàlla yàlla yërëm ñu fecc ko ci boole wale mu wane gannaaw mustakbiran di aji rëy rëylu kaan lam yasma daanaka déggul wax ci alquran ji alquran ji boo koy wax du ko déglu moo tax alquran moo tax nit yàlla fekk nit yi àddina yi ndax nit ak àddina boo ko fekkee moom moo de bu fekk seen ak yow yaa koy orienté fekk mukk ci xisaay anbiyaaw yi ak awliyaaw yàlla yi ak saalihiin yu baax ne mos naa dem wàcc kërëg kërëg buur tekki buur déedéet buur yee leen fekk si bu ñu leen fekk see ñu wax leen la yàlla wax de waaye foore joo gis foore joo gis mu miin kat buur xamal ne la maam sëñ Tuubaa waxoon xaadima jaxaat xalar moo fa nekk rek ah weñ wu day ci rek la foore du dem kat buur na xaal ba buur soxla ko ñëw ci moom mu wax ko dëgg dafa amoon benn waay bu ñu wax almaan yaa ca ci njawar alkaali naa bàyyi di ko nettali wax ko jooju dama dama dama dafa alam foko naa wax ne ko fa nekkoon tamsir seexu mu ne ko ah mu ne ko wax katab dëgg këram lay reere ba léegi nag dëgg googu dëgg la goo xam ne mënut a toxu mukk du toxu dem ci kër buur wax ko dëgg ah yombut de xam nga da ngay toog ba buur kaa wax ko dëgg rek kaa ñu ngi rek waaye fóode yi dem yi bu yàggee de te hadis boobu am na hadis boo xam ne dal na ci seen kaw yonentu ne mën a yonentu ne wax ne al ulamaahu warasatul anbiyaa'i wa hum umanaa'u umanaa'u ما لم يخالطه السلطان فإن قالت فإن قالته السلطان فقد خانوا الله ورسوله yonent dafa wax ne borom xam-xam yi ñoo doon yonent yi te ñoom ñooy umanaawulaay yi ñooy yàlla xooli ci kaw suuf si fekk jaxasoo ñoo buur ya jaxasook jaxasoo buur ya nag xor nañ yàlla kab yonentam kon sëriñ bu jaxasook buur rek ah mayem foofu no kon daal loolu moo ci nekk dëgg moom dafa leer naññi diggante bi nag ay mbir la yoo xam ne dafa lëntëre dëgg gi moom boo xasee boo xasee taxaw ci dëgg koo gis mu nekk ci dëgg rek dafay ñeme borom dëgg dafay ñeme ak dëggam bu koy wax du ko logg loggal koy wax rek moom lay wax wax waaye koo gis muy wax di ko logg laqal laqal xamal ne ay ay tappale la bëgg def dëgg rek fay ay ci ay fen la taxaw bañ ñi xam fenam ñi de kon ñun ñëpp yàlla na yàlla taxawal ñu yàlla yàlla taxawal ñu ci yàlla yàlla taxawal dëgg yàlla yàlla dimbale dëgg dimbale ñooñ dëgg ak fuñ mën a nekk ak fuñ mën a doon Seydina Omar ibn al-Khattab radiyallahu taala anhu fa wax ne mu ne dëgg suufeel ma te néew na bu mu xamee mboo gën ma te néew na bu mu xamee kenn bu la yëkkati tey ba léegi ma lay daaneel de moo tax borom xam-xam mun na toog rek bu buuri àddina yi soxla leen fekk si leen seen daara yi buñ liggéey na nga wax leen dëgg rek soxla la ñore yow soxla li yàlla yor rek nañ taxaw taxawaay yonent yàlla Suleymaan yonent yàlla Suleymaan li tax Balxiis respecté ko ba xamatu ko ba mu ko joxee ba mu ko joxee xalal bu jëloon xalal ja rek Balxiis da koy yàpp day xam ni kii àddina la bëgg rek moom ma mayam dañoo bëgg àddina ñaar ñu bëgg àddina lañ rek kon maamu jàkku de waaye bam ko jàllale fa ne ko atumi doon ni maalin fa ma ataani allahu xayrun ma ateekum wala xas ne kii nag waaye mooy waaye yàlla de moo tax mu dem xamatu ko ñàkk ñaal ko de moo tax ab sëriñ war na bëgg àddina war na gën a bëgg taalibe yi àddina war na gën oto bu rafet war na gën a bëgg rafet war sa bëgg a gën a ay dama mooy rafet da baal ma ci ndax yooyu yëpp loolu yëpp yooyu yëpp ñoom dañ koo bëgg yow daal na nga fexe ba nañ la xóor na ñoom yaa leen gën a bëgg yàlla yàlla daal ba leen ba leen gën a bëgg yàlla kam yeneen toom rek daña nangul de wàcce seen i fi àddina yi nag ndax dafay jeex de moo tax Hasanul Basri ba mu nekkee foore jiite waa Misra bañ ko la bañ laajee lu tax na Hasanul Basri nekk seen kilifa daf ni waaje dafa ko dañ ko wax dafa Hasanul Basri kat li tax mu man ñu kilifa moom lim ñu gën a bëgg nangoo ko bokk ak ñun te liñ ko gën a bëgg baaxee nañu ko de ñu ne ko ana Hasanul Basri lu mu leen gën a bëgg mu ne moom yàlla la ñu gën a bëgg xam-xam te nangoo ko bokk ak ñun ñun àddina lañ ko gën a bëgg ak alal dina ba xëy na ko ñun de kon kilifa gu bëgg a kilifa ci diine loolu rek ngay taxaw de boo ko deful nag dikk bokk ak waa àddina seen seen seen àddina ji ah ñu xosi comme ni ñu xosee waa àddina rek moo tax gaa yi di kaas naan lu tax ñu kilifay diine kilifay diine kilifay diine kilifa ak diine juddu doo juddu du rek yow bàyyi sëriñ la woon rek waaw immédiatement sëriñ nga war a doon boo taxawu taxawaayu sëriñ it yaa gaayee rek gaa yi dañ lay wax li ñu lay boo leen saaga ñu fay ñu saaga la dara dul dara du yoon boo boo leen boo fi nekkee tëkk sotti ndax ñu bëri ci ñun kilifaay diine yi oote mën a yem amuñ benn maqaam bu ñu wootee seen maqaamaay bàyyi ak seen maqaamaay bàyyi maam yi lañ bëgg a lañ bëgg a jaay ni problème boobu alquran réglé nañu ko bu yàgg bam nañu tilka ummatun qad xalal laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wala tujzauna ma kaanu problème yi alquran moom réglé nañu problème boobu bu yàgg ñun kay di sonal doom ku la gën a tegu ci yoon daal yoore jëme ci yàlla gën la bëgg yàlla ko koy sëriñ de waaye sëriñ waaye kilifa kilifa gis ak yàlla koo xam ne fay ànd ak fay ànd ak àddina ñuy lor seenu askan kooku loolu du kilifa ak loolu égoïste la moo doo gis mukk ci taarixul islam wala nga jàng histoire alquran bi woote katab yàlla ànd ak buuru buurab jamonoom askan wa askan wa kay lay ànd ñun nag léegi dama mel ni ak contrôle ci rajo bi ñun daal yàlla na ñu moo tax ne ba bare nag lekk lu bare ñu woote ko lu nekk ñu ne man man nañ ko yàlla yàlla suturaal ñu te ñu rek fa bashirhu mbëggal ko bi asaabin ci mbëggal moo tax way saa tullaa ne jaali xaayatu naa suñu alquran wala moo ne gannaaw mustakbir yaa ji réy réy kaan lam yasma daanaka digul alquran ji de ka anna fi uzunayhi mu mel ni ñaari noppam yi waqran ab daaj de mel dañoo daaj ñaari nopp yi léegi booy waaraate nit ñi dafa mel dañuy sakk seen nopp yi ba mu tax boo leen waxoon lu leen neexut nga xam daal liñ bëgg nga waaraate woo xam ne waaraate fol couleur lañ bëgg waaraate woo xam ne da wax da ngay wax ay tamaniyaat rek di teg ñi ñi ñuy sorxole képp fottas te te yàlla moom demeewul noonu de fiatu fi kaana fiu si nekk ne noppa mi waqran ab daaj buur fa bashir hu feegi bisara ndax kenn ko bi waaye nag tawfiix la kon daan fa basiru xamal ko bi asaabin ci mbugal alimu de ji métti de borom ak méttital de kooku de xamal ko nee naa mbugal mu métti ci yàlla inna lasina loolu mooy système loolu mooy mooy mooy mesu alquran dafay boole xuppe ak bégle day xome xuppe day boole xuppe ak bégle de ba mu ba mu ñi nga xam ne ñoo nangu ñoo déglu alquran dañ ko teg fële waaye nag ñi nga xam ne nangu lañ yàlla nag ñoom inna la si naka ñaaña amano gëm nañu yàlla wa amiloo teñ jëf asalihaati jëf yu baax ya mooy farata yi ak naafile ya farata yi ak yi jëf yu baax yi lahum ñaan na leen jannaatu aljana yi xéewal de ñoom dañuy xam aljana yi xéewal mu ne li nga ñi nga xam ne ñoom gëm nañ yàlla mooy gëm nañ yàlla gëm nañ alxuraan gëm yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam gëm dee gëm dekki ba pare di jëf-jëf yu baax yi gëm alxuraan di jëf-jëf yu baax yi nag mooy farata ak naafile yi lahum ñoom dañu xam jannaatin nahiimi aljannaay xéewal xaalijin bi mu ñëwee sax bi mu ñëwee sax yaa ca aljanna ya loolu de wax da lay digab yàlla xaqan dëgg de loolu yàlla ko digee yàlla moom lim digee dëgg la de kon ñu nañ góorgóorlu yàlla yàlla daf teg ci siratul mustaqim woowa les yi woowa yàlla woowa moom yàlla moomu mel noonu alxasiisu moom moo melokaan melut alxasiisu de mooy ji nopp ci nguuram alxakimu daa ji xarañ ci jëf-jëfam de yàlla mooy ki nga xam ne mu ci nguuram demoo xereñ ci temde yàlla moo xalax bind na samaawaat yi asamaan yi juróom yaar bi xayri amadin ci luut kenn yàlla mooy ci bind asamaan si benn kenn benn téye jàkka ji rek bañ ko bëggee boo ko bëggoon a ko te defoo benn kël benn benn poto mu taxaw asamaan yàlla tàllal mbaar mu toll ni asamaan nag tàllal ko ci te amul benn kenn benn pied bu ko de koo koy yàlla tarawnahaa yéen eh. eh. a ngi koy gis yàlla mel na ne yàlla ne maa maa taxawal asamaan si amul benn pied mais ne ngaa mu ne yaa asamaan si ñëpp a koy eh, gis de mu ne tarawnahaa gis asamaan gis ngeen fi benn pied de tarawnahaa gis ngeen ko amul dara lu ko lu ko téyel ma yàlla rek yàlla moom wa alxa ma ngay wax nag jëfi yàlla yi pour wet loolu yëpp laay makka la ma ngay saxal nag tawhid pour sa tawhid gën a dëgër ci yàlla nga xam ne yàlla moom yàlla mi nga mi war a jaamu daal kenn rek la mën a doon de munta am bokkaale de waal xaasani na fi daal di ci suuf rawaase ay montagne yàlla moo fa montagne daaj ko ci teg ci suuf si ba suuf si jaayuwut suuf si niñ ko tàllalee noonu du ko yàlla bàyyi woon dafay jaayu te kon duñu mën a wax dëkk de yàlla sambal ju ci ay montagne montagne yeeku mel ni ay daaj yu ko daaj antami dafa du jaayu bikum ak yéen ba ba suuf si a jaayu ak yéen loolu yàlla ko def de ko def lii xam nga ne am na am na kattan de wa basa ah wa basa mu yulli fiya ci suuf si nag waaw min kulli daabatin ci lépp luy jukkat lépp luy jukkat de mu daal di ci suuf si nag ci lépp luy dox yi dox yëpp ci kaw suuf si la nekk yent yent yeeg nit ñeeg mm, juri kër yeeg njanaaw yeeg yëpp e mu sotti ko ci suuf si mu fees dale ay bindee fan yu kenn xamul nu mu toll nekk ci kaw suuf si de kooku day ki def loolu mooy yàlla de wa basa mu yolli fiha ci suuf min kulli daabat ci lépp lu jukka luy dox rek benn xemut ca loolu mooy a nimatul ijaat gi nga xam ne moom la xamal njëf yi waaye xemut ca nag bam ñu bam ba pare fa ñoo jox beneen xéewal goo xam ne mooy xéewatul im nimatul imdaat fa ñoo xamal pare di diñu tëbb nag de yàlla bu fekkoon dafa ñu sàkkoon rek teg ñu fi ñu ñu fi ay xéewal ci àddina duñu fi mën a dëkk waaye àddina dama ko sañce ba pare yàlla tegal na fi préparé fi lu ñu mën a de ba suñ digg yi jeex waan sal na moo tax wax na ndax wax na xéewal ak xamal bi gëm xamal yëf waaye ma ngay wax na xéewal te nimatul imdaad de nimatul imdaad nag ba ca gën a màgg mooy taw moo tax mu ne wa am sal naa ñu wàccee mina samaay maan ab taw taw de taw bi lu muy jariñ ah taw bu tawee ngeen bay gàncax am ngeen am dund ak seen ak jur de faan ba naa ñu saxal fiyaa ca ba min kulli zawjin ci bépp bépp bu dee aji tedd ndax doomu aadama yàlla fa ko teral meññet tedd rek la koy lekk loole lim koy lim daganal ci moom yëpp du baax la ci moom baax na ci moom scientifiquement waaye baax na ci moom moralement baax na ci moom it ci de ma tey daganal yëpp boo ko lekkee boo ci amee doo loru de yi ma araamal nag boo ko lekkee mu gaañ la lor dana lor sa yaram waaye dana lor sa diine lor sa de min kulli sawjin ci bépp xeetu meññet karimin wudi aji tedd xeeti meññet yëpp ci la bokk de haasali ah yàlla ne haasali xalqulayi yàlla ne men yàlla nag fa bëgg wax ne yéen ñi ma wutal morom di wax ne man yàlla am naa nawle am ngeen ko may man de lii laa def wax leen seen gaa yi def ne haasa lii xalqulaayi lii may bind ak yàlla faarooni wan leen ma yow ma yéen ma mat ma wan leen ma yen nit ñi maa saa xalaqa ana lan la bind allazina ñi nga xam ne min dooni duñ yàlla de xees nañ yàlla de ñi ngeen jaamu ak ñi ngeen jaamu te duñ yàlla ci kaw suuf di fuñ fi dara seen yàlla yi ne jaamu man de maa def lii man yàlla maa leen defal lii seen yàlla yi luñ fi defagum dara luñ fi bindut de albahil ha asalimu na tonkat yi te mooy bokkaalekat yi fii dalaalin aji nekk lañ ci réer mu biinin guddi aji bidde li am solo kay mu ne ko bàyyil wax jooju ah tooñkat yi ñu bakkaale yàlla dañoo sànku rek koo gis muy sàkkal yàlla nawle wala muy sàkkal yàlla morom rek dafa réer de dafa réere boppam sànkute ku mit la nekk de waaye wax ba réeru toon dana xam ne yàlla amul nawle de ci kaw suuf amu ko ci asamaan amu ko ci àddina amu ko ci àlaxira wala wala amdu fil aw ula wal axira yàlla dong moo am kattan àddina ak àlaxira de mu ne tooñkat yi nag ñoom dañoo sànku de wala qad atayna ah doomu aadama yi nag léeg-léeg dañuy am dañuy dañuy jaawale jaawale teral nit wala teral dara wala fonk dara ak jaamu nit mën naa fonk dara waaye du ko jaamu nit mën naa màggal dara ndax yàlla ko màggal mu màggal ko ngeen màggal yàllaam nga loolu mooy màggal gi ñu màggal borom xam-xam yi dañuy màggal rek waaye duñu du ñeen màggal ga it màggal ca la leen yàlla màggalee rek fa yàlla xem ñu xem fa ñoom ndax bokk na ci ragal yàlla mooy màggal woon sib san ay ralaay fonk yàlla am na ñu fonk ci ay mbindeef am na ay barab yu mu fonk am na yëf yu mu fonk fonk ko ngir yaay fonk yàlla ga loolu bokk nag jaamu ko de jaamu nag ay xaaj lañ su fekkee ne joot la sujjóot bi nga xam ne mooy tekki jaamu moom juróom ñaari yax la yonent wax koy def mooy sa jëbeeg sa bakkan bi sa ñaari bati hoom yi waaw ak sa ñaari tenq yi sujjóot boobu moom duñu ko defal ku dul yàlla amma foon sujjóotul moom di teral loxo ba loolu bokkut ak sujjóot de jaamu hit fekkee mbindeef fekkee ne yow ki nga xam ni moom nga wax ne mooy mooy moom moom nga doxale sa diggante sa borom su fekkee dafa lay digal lii la yàlla digal di la ko fettal ko fett di la fett di la yàlla digalal ko def nga ànd ca ak moom loolu fa niima hiya fa niima loolu lu baax la dafa lay tere yàlla tere waaye nag béréb keroog bu la digalee loo xam ne lu yàlla xaraamal la nga def ko ngir ndigal ma tax nga def ko yaa ngi koy jaamu keroog bu mu la teree lu yàlla farataal ci yow nga war koo def yaa ngi koy jaamu de nga war koo nga bàyyi yaa ngi koy jaamu de kon loolu mooy mooy mooy xaayida jaamu du jaagan jaamu xërëm yi am na ñoo xam ne fi nekk nii seen bakkan yi la ñuy jaamu am na ñoo xam ne fi nekk nii li ñuy jaamu mooy seen poir seen poir yi am ñoo xam ne seen xale yi la ñuy jaamu lu xale ji rek moom la ñuy def de am na ñoo xam ne nit ñi li ñuy jaamu de nit ñi bëgg rek ci lañ nekk waaye booy jaamu yàlla nag moom da xam ne yàlla rek nga war a jaamu de lim digle daal moom la ñu lim tere moom la ñu war a bàyyi de ay digleem moo jiitu moo féete kaw ndigleel kudul moom ay tereem moo féete kaw terey kudul moom de xaa yi daba indi ko ñu ne laa taata li maxluqin fi masiyati xaaliqin amul menn mbindeef muñ war a topp ba ma yàlla amul lool mooy dëgg de yàlla nag ne lii de man moom laa bind man yàlla seen di ngeen wax ne ay yàlla lañ luñ fi def dara mu ne tooñkat yi daal dañoo réer rek ñi bakkaale ak yàlla zulmu fii alquran da ko firi zirku la ko firee da ko da ko firee ndax zirku mooy tooñ gi gën a mag ndax bu zulmu mooy nga def nit li nga def nga def la fudul barabam jaamu foo ko def fudul yàlla rek yaa ngi ko defee ko barabam de kon yaa ngi tooñ yaa ngi tooñ tooñ gi ngeen mag moo tax yàlla bokk ci ah, mooy bakkaar bi nga xam ne du ko jéggale de waaw bakkaale kat dañoo réer buur nag daal di ne nag kese bi tax saa saa Luqmaan mu ne Luqmaan Luqmaan ñu ne ibnu Bahoora ah, ibnu Naahoor ibnu Taariq ibnu Asar doomi mbokkam ah Ibrahima Ibrahima ay Ibrahima ay mbokk lañ de yonent Yàlla Ibrahima ñu ne doomi mbokkam Ayoba la woon maanaam jigéenam doomam la woon mu fasiroona yi comme mbirum taarix la fokk duñ ca bokk jenn wax foog ñu wutee dañ ci bëri am na ñu ne doomi mbokkam Ayoba la am na ñu ne ah, doomi la woon lu mën a xew luqmaan hakim la duut yenentu ñu ne dund ku fan la ndax xeet yu njëkk yi ñoo gudd fan xeeti yoon ci yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam yonent ñoom su fekkee ne hadis bi wér na yéen dafa wax ne amaaru ummati maa bayna sittina wa sabon la wax mu ne dundal sama xeet wi daal li ci gën a guddi goon ci juróom benn fukkaat ba juróom ñaar fukk loolu moo not ci dundam xeetam wi mën na ko mën na ko ëpp mën na mën ngaa gis ñu ko ëppale mën ngaa gis ñu ko yeeslale waaye yoon tu noonu la ko wax fekk hadis bés fekk hadis jëwér na aw kama qaal sallallahu alayhi nag amoon na junne at ci téere wax moo tax fekke woon na yoon ci yàlla dàngoor ak daa fekkoon na yu bëree yow jamonoy ayoba ba yoon ci yàlla daawuda na ko de junne xel la fa guddi guddoon fan fekke nguur ak daawuda ga ñu ne àttekat la woon dafa daan àtte ci bànn Israël borom xam-xam yëpp dëppoo nañ ne kaana hakiman ku xarañ la woon de waaye du yonantu ba mu des ak karamatu Ikramatu rek moo wax ne moo wax moo wax ne Luqman waaye xibaar borom xam-xam lépp ci fode yi ñoom ñëpp dañoo d'accord ne Luqman hakim la waaye du yonentu Ikramatu nag moom ci saaba yi bokk ne moom yonentu de ñu ne déedéet Luqman yàlla fa ko tànn doon yonentu ak hakim mu tànn doon xëkk tànn xëkk ma de tànn hakim de li wér daal li gën a bari mooy hakim la woon Luqmaan nag ah jaamu ko te yàlla la ci guddi ndax ni ñu baax ñëpp saalihiina yëpp ci guddi la ñuy yéegee jëm ci seen borom allaylu huwa mi'raaju saalihiina mooy gayu yu borom xaw gaa yu baax yi de moom dafa daa nelaw gën waaye daawul nelaw guddi lépp asaalihuna yi tane ñi yàlla tànn daaw nelaw guddi lépp de fokk dañuy xaaj guddi gi nelaw lii jaam yàlla lii wala ñu gëstu xam-xam de moo tax moo tax Luqmaan gën wala guddi la nelaw bu nelawee gën a wàlli guddi gi jóg di jaamu yàlla bañ xoo ko ni ko ndax doo ñëw ma def la ngay xalifa ci kaw suuf kaay ma def la xalifa samp la xalifa ci nga atte ni nga nga atte nga atte nit ñi de mu ne a ah, mu daal tontu ci baat xabilatu faqa ne ko bu ngeen bu ma sama borom tànnul waxee su ne sama borom ma tànnal nangu naa su fekkee sama borom tànnul naa nangu naa jàmm de waaye nangu ma nangu ma nattu de su fekkee ne sama borom daal dafa ma tànnuloo ma doon hakim ma doon ma ma ma siis may sàtte nit ñi kon de man ñàkk a xàtte mu ma gënal ndax xàtte nattu la de moo tax siis yëpp dañu waroon jàngal yàlla xam leen li nekk ci àtte bu dëggu bu jeng xam leen li nekk ci àtte bu dëgguhut la leen ca yàlla yi la leen cay xaar ëllëg yowmal xiyaam ci ay dumay yàlla kon kuñ fal siis nga bañ de lu may ñàkk pexe wala boo ko nekk da nga góorgóor loo man ak ba Luqmaan bañ ne ko kaay àtte ji nit ñi mu ne man de bu ma sama borom ma tànn ji am mucc rek am jàmm nekk sama ba pare doog mu nangu balaa de su fekkee nag yàlla fa doogu ne foog ma nekk àttekat kon nangu naa ci topp naa de mu ne wa inni a'lamu fa'ala bi zalika ahanani mu ne fekkee yàlla fa doogu nag ne ma Luqmaan foog nga xatte ji mu ne kon danaa nangu de ndax su boobaa damay yaakaar ci yàlla ne yàlla dana ma dimbale de te dana ma fegal de dana ma dana ma dimbale te dana ma dana musal ba ba ma jeng ci àtte jeng ci àtte bokk na ci bakkaar yi gën a mag bokk na ci bakkaar yi nga xam ne mën na yóbbu borom safara de te def cay beel ndax justice bu normalul li muy gàddu ci xàq dafay rëy justice bu normalul day yàqam réew day indi na ci am réew day tax réew mi dara dootu dox day tax réew mi économie bi du dox njàng mi dox commerce gi du dox mbay mi du dox napp gi dox njàng mi du baax dara du baax ci réew ndax siis ndax yàlla nee na damaa taxawal ard bil misaan wala wala tufsirul misaana misaan mooy sistis bu yàqoo réew ma yëpp ay yàqu rek kenn mënu ci dara yàlla nee na yonentu nee na am réew dana taxaw ci maandute doonte muñ yàlla waaye am réew dana daanu ci ñàkk sistis donte ay julli lañ fa nekk ne doonte ñu fa nekk dañoo wàcce ne ay julli lañ ba tax boo xamante ne nekk nga ci réew ba gis sistis ba di rëng-rëngi sistis ba normal tut koy bu tiit koy bu xaal koy bu tiit de xam ne àddina tukki na ba pare ñu ñun ñëpp xam nañ ne kuy waxal yàlla rek kuy waxal yàlla rek te dara te jubloo séntuwoo ci dara xam nga ne suñ si mi normal tudde waaye nag inna rabbakum labil mirsaadi waaye yàlla moom inna rabbakum labil mirsaadi yàlla moom fàdduwut te du fàddu mukk xam na lépp xam na lii dëgg xam na lu du dëgg yàlla yàlla xettali réew mi yàlla yàlla sowe réew mi yàlla yàlla sowe ñuñ réew mi yàlla yàlla sowe ñi ñi bëgg réew mi te di ko liggéeyal yàlla ma leen gën a xam yàlla yàlla yàlla a leen xam sax yàlla yàlla def loolu de ba mu ko defee luqmaan nag mi ngi noonu mooy àttekat bi mu ne ko nag malaaka yi daal di koy wax nag malaaka yi wax kaddu ko xam ne moom gisu leen ñu ne ko yow luqmaan ina al haakima bi asari manasiri wa aqdariha yaxsaa zulmu kullu ma yaxsaa zulmu min kulli makanin in hadila fa bi harriyin an yanjo in axtaha tariqa axtaha tariqa aljanna mu ne ko yaa ñu ne ko ya malaaka ne ko yow Luqmaan ndax xam nga lan mooy siis siis ndax xam nga lan mooy xatte xamal ne xatte kat ma nga nekk ci gën jaa tati wàccuwaay gën jaa lëndëmi gën jaa lëndëmi wàccuwaay donc fu mu ah, xatte kat lëndëm moo muur ci barab bu nekk donte dañoo maandu sax fa bil har yi nag mu ne an yan joo in axtaare mu ne nag rawatina nag su fekkee ne xattekat ba dafa xatte joom wàcc wàcc yoon wa dafa xatte wàcc dafa xatte yoon wa dey su fekkee ne dafa xatte wàcc wàcc yoon wa fekk moo ko te mu ne dafa koy leer ne wàcc na yoonu aljanna bépp siis boo xam ne siise nga loo xam ne danga ngaa wàcc yoon wi dëgg gi jàdd yoon yowul teg nga yoonu aljana de daanaka jaratul ngay xoor ak julli teg nga yoonu aljana de mu ne ci nga toog ci àddina mu ne siis bi mu ne kot nga àtte wàcc yoonu juba nga toog ci àddina nekk ku torox moo gën ci yow nga nga nekk ko tedd ci àddina ba pare ba ci yoonu aljanna de aljanna yoonu aljanna nga dund ci àddina torox kenn kamula moo gën foofu nga dund ci àddina bi ne ñu teral ñu tedd a tedd ci àddina waaye boo demee ba ëllëg àllaaxira nga wàcc yoonu aljanna mooy dundoon ci so ci suuf ci toroxte moo gën tedd ci àddina bii de mu waaye nag koo xam ne moom dafa tànn àddina rek jëndee ko àllaaxira àddina ko jël àllaaxira kooku foog ñen tu ko ci àddina de foog foog ko ngeen soog àddina te bu àllaaxira xam dara caa yàlla de bam ko defee nag malaaka yi nag daal di yéemu nag ci kàddu gi nga xam ne moom la Luqmaan wax moo la tontu de ci mati xam mu daal di nelaw mu nelaw am nelaw mu nelaw ak nelaw jox ko ne xikma nag jox ko benn xam-xam boo xam ne nag xam-xam buy jëriñ la mooy xikma de yàlla xikma boobu nga xam ne moom la yàlla wax ne kuñ ko jox jox nañ la xiwu bari xam-xam nag moom yàlla ne tuuti la ci joxe wama utiitum mina illaa wama utiitum mina illaa qalilan waaye man yuutal hikmata faqad uutiya de kon hikma gën xam-xam jëlee xam-xam am na solo ci lu nekk waaye xam-xam nag baa ne hikma booba lay dafa am njëriñ de yàlla ne xam-xam lu tuuti la ci joxe waaye kuñ jox xam kuñ jox hikma na jox nañu xiw bëri de moo tax Luqmaan yàlla jox ko hikma muy àtte nag teg ci maanu rek ma hikma eh, Luqmaan nag moo doon conseil la woon ci Daawuda fa daan jaraaf da ko daan da ko daan conseil ci hikmaam yi ak xam-xam bi de ñu ne Luqmaan xamoon na métier xootekat bi yàlla it fa war a am métier Luqmaan ministre la am na ñu ne jaam la woon boo xam ne Habasa la dëkkoon am na ñu wax loolu ñu ne déedéet daan sàmm ay gàtt de lu mën a xew rek lim la bëgg a sa waxal mooy Luqmaan amoon na métier moo xam ne ci la daan tuur ña xam ba am lu lew de ñu ne Luqmaan tajowoon nag benn waay wax ak moom xam-xam hikma mu ne ko xanaa di yaay diwu sàmm bi mu ne ko yow yow yaay yow diw mi sama bi yaay wax xam-xam bu leer bi hikma bi mu ne ko a ah, kay fi foo foo xamee ah, fa bi ma balaxta ma balaxta fi li nga am foo ko jëlee xala bi sidqal hadisi mu ne ko foo jëlee li nga am mu ne ko ci dëgg waxtaan de mu ne ko foo jëlee li nga am mu ne ko ci wax wax waxtaan dëgg de dëgg dëgg wax dëgg wax ci dëgg wax wa adaa il amaanati ak joxe kóllëre boo bëggee am daraja da ngay da ngay fexe bay wax fexeel bay wax dëgg da ngay joxe kóllëre buñ la xoolee ba dénk la na nga delloo ka la dénk wa tarku maa laa nii ak bàyyi lu sama yoon nekku de ñett yooyu boo ci saxee da nga am da nga da nga am daraja de booy waxal dëgg buñ la xoolee na nga da nga

wala xad ateenaa na nañ luqmaana luqmaan hikmata xam-xamam hikma de loo teg waman yaskur yàlla an jox ko nag yàlla jox xeewal ci ñun dafa bëgg nga sant ko de sant ga mooy nga jëlloo xeewal nga nga jox nga dimbali ko nga dimbali ko ko topp yàlla mooy nga nga jëlloo ko yàlla de wàll ne jox nañ ko xeewal xam-xam hikma an ko jox xatte kat lay lay mooy mu fexe ba tegluwaayu ci yoon taxdu ko tax a jàng kooku sant na sant na xeewal ga bu ko jàngalee nag sant xeewal ga te ku sant yàlla fa lay duma waa ana an luy mbir ci mbir askur santal allah yàlla jox nañ ko xam-xam xikma santal yàlla waman yaskur ah ku sant fa innama yaskur naka dana ma sant def si ñeel boppam de ndax njariñ ci moom lay dellu ko yàlla de sa bopp nga ko defal mu ne ku sant yaa sa bopp nga sa bopp nga santal moom dara mënu ko wàññi dara fay na maa yaskur naf si fa santam ñeel na boppam de wa man kafara ku weddi da sakk jëf waaw bañ a delloo yàlla xëy ñi jukkal fay na laa naka yàlla moom xan ko doylu la amidun kuñ sant la yàlla moom doylu ne wëlis mi def moom rek moo am xinal mutlax ku dul yàlla sa xinaa gi nekkul mutlax de mu xayal la majaas la loo bari le bari le da nga am koo soxla même recensement bi nga xam ne sax milliardaire la amul amul dara bés dina ñëw dafay soxla ki gën a ñàkk soxla ah, ci ci ci ci biti nit ñi mooy dana soxla bu foosam bi feesee wala wala wala wala wala foosam bi duusam bi dafay seeti benn waay boo xam ne ci mbedd mi ko kera kookaay kera kooko ko ko xilif de lu ko wax ne ko def ko dana ko def kon na soxla ci moom moo tax doomu aadama mënut a ñàkk am soxla ci doomu aadama de wa man yashkur ko sant na mu fa innama yashkuru dafa tal def ñeel boo xam ne sant ci moom lay dellu wallaahu fa inna laanaka wa man kafara ko weddi hit sag weddi hit yaa koy gàddu de lay si barkaar yaa koy yaa koy xenu ndax fa inna laaha naka fa inna laaha naka yàlla moom xanin ko doylu la xamidun ku sant la yàlla ko doylu na walis mi def yëpp moom sant bu dee sant it am nañu ko sant de yàlla ñëpp koy sant wala xad atayna waaye fa xadi ma ngay fàttali ko lii bi ci liñ ci nag mooy lii la bëgg wax loolu ba yëpp nañ koy wax seen doom yi doom yi nañ ko déglu de ma ne waaye wa es xaala ba waxee luqmaanu luqmaan wax ku muy waxat liim nii ñaal doomam eh, luqmaan parce que ba mu muy waar muy wax ak doom ji wax doomam de o fekk moom luqmaan yaa ngi suba dana waar doom ja wax doom ji luqmaan ngay wax doom ji di ko waar de o yaa ngi suba dana mu waar ko lu mu koy wax ne ko yaa bunay lim ko njëkk Luqmaan waare doom ji mooy fexeel ba mucc ci bokkaale ne ko yaa bu na yow sama doom laa tusrik bul bokkaale billahi ci yàlla de laa tusrik bul bill laa tusrik ci yàlla sama doom na nga fexe ba mucc ci bokkaale de bul bokkaale yàlla de ndax ina sirka naka tooñ naka bokkaale la sulmun tooñ la ansi mun guddi aji màgg de nanga fexe ba bul bokkaale yàlla kenn bul bokkaale yàlla dara nanga fexe ba sa xol bi na ci gëm yàlla rek naka nga am tawhid ndax bokkaale kat bokk na ci tooñ yu màgg yi de yàlla du ko jégal kon yow xale bi li njëkk a war ci yow mooy nga fexe ba defar sa gëm gi gëm lu gëm gu wér kasi imaani boo gëmee yàlla nag sakkal boo gëmee yàlla nag ko jaamu wéet wéetal ko bañ ko bokk bokk bañ ko bokkaale kenn gannaaw ba xaq yàlla wéyee nag xaq yi li ca topp mooy xaq wajur xaq yàlla ba mu wéyee xaq wajur ca a rëy awasay naa dénk dénk nañ dénk dénkee nañ ah al insaana doomu aadama bi waaliday ci ñaari wajuram yàlla nag bu xaq yàlla waaj wéyee yow doomu maa la dénk nga toppatoo say wajur de dénk naa la ko ay dénk na ko dénkati la ko waxte dénk nañu ak doomu mu toppatoo ay wajuram mu ñu nag mel ni fa laa wax nag wajur yooyu nag xam na ku ci gën a sonn mu ngi masal ma mu ne xamala du hëmb na ko ah umu hoo ndayam wax nan ci doyadi xaala wax nan ci kaw ak doyadi rek wala xamala du wan hëmb ko umu hoo ndayam wax nan ci feebar xaala wax nan ci kaw feebar rek wala xamala du xam mu ne ko umoon wax nan ci ci kattat ci jafe-jafe xaala wani ci kaw jafe-jafe rek jigéen ñi xam bu ci jigéen bu xambee doom xoolal fii sax ñoo am sax bañ na dañu wérut kon wérut feebar ci kaw feebar rek jafe-jafe ci kaw jafe-jafe rek tattat ci kaw tattat rek ba mu juróom-ñeenti weer mu xëy mu xëy bi la kooku xam nga de wa fisaaluhu diggante hëmb ga ak feral ga ak na diggante ak feral ak nampal ga fiyaa may ñaari xat de boo xoosi ne de diggante nampal ga ak feral ga ñaari xat gannaaw bam la nguus guusee juróom ñeenti weer ba wasin la mu lay nampal nga nekk liir boo jooyee guddi boo boo jooyee mu xeew du nelaw boo feebaree du nelaw parce que yaram tàngee du nelaw buy bu la bootee sax buy daanu saagoon dafay defee defeenu di la dala sàmm di la xaar yaa tere nelaw de ba mu am ñaari at mu feral la moo tax ne fisaalu ak feralam fi fi amee ñaari at yàlla nag ne kooku de moo tax ba ma la nga sant ma man yàlla nang ci boole say wajur an ne askur santal lii ñaal ma sant man yàlla mi nga xam ne maa si sabab xam waaye ci ñaar ñi la la jaarale de ba ma la sant nag man mi nga xam ne ba ma sante man yàlla nag nga xam ne maa si sabab xam wali waalidayka ak nga sant nga gërëm say wajur de wali waalidayka man yàlla dong na almasiru ngeen jolu yéen ñëpp ma fay leen seen jëf de yàlla nag moo tax mu ne sa ndey ak baay laa la jaarale te sa yaay moo gën a sonn ci yow moo la hëmb di la nàmpal di la raxas nga way puuba ka saw le nga def ko ko ba xëy nekk ponkal waxambaane ma ne su boobaa nag ma santee man yàlla santal say wajur de sant ka nag mooy bul wax rek jërëjëf waaye luñ la sant cee lañ sot na ko def bu buñ la yónnee sañoo a bañ booloo na a gëdd waroo leen a janni waroo leen a xaade waroo leen a wax ci yow nga wax leen baat baat bu naqare de lu ñu sant ko war a def waroo maa sonn ndax ñoom ñoo leen ko sonn bañuy ba ñoom ñoom bañuy sonn yow yow juddoo ko kon diggante bi mën a fekk a leen fekk na sonn moo tax xale boo gis yaayam yónni ko baayam mu naan damaa sonn ko xamul li xew de ndax sa baay fekk ko ne sonn rek la yow ba ba nga juddoo ko ne sa bàyyi di sonn sa yaay yow nga diggante fii ba nga ko juddoo mu ne sonn xaja ko fi ko mu ne na sant say nanga ma sant man yàlla te nga sant say wàjjur de te nga toppatoo leen rawatina sa nday nag moo tax yàlla xàq yàlla moo jiitu ci xàq jaam bu nekk gannaaw nda gannaaw gannaaw gannaaw gannaaw gannaaw yàlla nag ndaay ak seen xàq dara dabu ko de kenn mun moo tax seen xaq ndey baay benn xaq tollu hut ni moom moo tax lépp loo defalul sa ndey ko sa baay waroo ko defal mbindeef ci man dong ngeen jël si de wayin jaadaaka ndem gëtan lañ la nag sonal sa ndey sa baay nag yàlla na baay nag li ñuy for for li ñu ma maqaama wa in jaadaka nem sonal nañ la nag alaan tusrika ci nga bokkaale bee ci man maa loo xam ne laysa laka dirjeel bii ci moom xelum xam-xam fala tutti ma bu leen topp ca loola nag mu ne ah nday ak baay kat man yàlla maa leen ko dénk ci alquran waaye loo leen fonk fonk nag bés bu ñu la bëggee dogalee ci bokkaale lankal bés bu ñu la bëggee dogalee nga bokkaale ak man yàlla ci loo xam ne ko lankal de waaw ndem nday ak baay nag moom la yàlla moom ci alquran saxal ko moom la yàlla mayut mu wax mu wax mu wax mu wax mu wax doomam mu dugal ci mbakkam nangu ko de atumaa nag atumaa nag ku ñu tuddee sëriñ maqaama boo mën a doon sëriñ mooy ki nga xam ne falaa jiiti ci yoon yàlla wa nekk ca te la woo xam di la ko wan ngeen ànd ca waaye sëriñ du li ko nit ñi teg de sëriñ du barkeelu kaay boo xam ne ko fay teg rek boo xamee jàqare awa boo defee sa tooxi doona lii yàqu ci penc mi yëpp yaa koy def musiba bu nekk yaa ngi koy yaa ngi koy boo booy dem nag sëriñ ba daal di xamee melokaanu saaxiru baax baax baaxlu waaw bu fekkee ni jigéen nga daaw muuru nga muuru ndax loolu tax na sëriñ ba xanaa sëriñ ba nga a ragal ci yàlla te gis bu fekkee ne daawoo daawoo sol lu baax nga sol lu baax daal di bañ daal di daal di dikk jox sëriñ bi dikk ci sëriñ bi baax baaxlu sëriñ bi moom melokaan bu baax nga wan mu jàppane baax nga waaye yàlla lim la xamal la moo gën a dëggu de sëriñ boobu nag daf laa daf laa digal yàlla digal la dégg naa benn sëriñ bu baax bu ko doon wax sax ci ci ci ci ci yi di ko waaye loolu la loolu mooy waxi sëriñ ñeneen gaa yi yàlla fa ñoo digal julli digal leen ko digal ñu xoor digal leen ko digal ñu jaamu yàlla digal leen ko léegi nag su fekkee bu leen yàlla digalee ngeen lànk man sëriñ bu ma leen digal dem ay naa fekk ngeen wax na dëgg yow bu la yàlla digalee doo ko def waaye bu la sëriñ bi digalee nga def ko xanaa kon sëriñ bi mooy sa yàlla naa fekk nga de te loolu ngay def du la benn njëriñ te bés bu ñu la xeewee say bokk takk la ci taasa tànk dugal ji ba meel da xam ne yàlla dëgg la bëgg de da xam ne caaxaan fa da nga xam ne caaxaan faaxut de nañ bàyyi théorie tey wax mu dem mu jeex ndaay ak bàyyi li ñuy for for laa digal nga bokkaale ak yàlla asama keneen de wa in jaadaaka buñ la sonalee ala an tushrika jobak bi ma laysa laka bi ilmun loo xam ne amoo ci xam-xam faa tutuma bu leen topp ci de moo tax naxa yi ne na topp leen war loo xam ne dafa yóbbu ci bakkaale ila topp leen war na lu may topp leen ci topp topp topp topp topp ndey ak war la waaye nag lu may topp ga jël ci bakkaale de suba doo leen topp de wa saahibihuma wa ba la taali ma du fekk alayhim wa saahibihuma àndal ak ñoom fi dunya ci àddina ah maarofan ci njëkk rek fekkee mbir àddina yi la nga xam ne laa mi moom àndal ñoom ci njëkk ci lu baax ama mbiru xaqida moom xoolal rek waaw fexeel ba bu bokkaale moom bu ci kenn dugal de bu sa ndey dugal bu ci sa baay dugal bari ca sa xarit dugal bari ca sa sëriñ dugal yow daal wéetalal yàlla kenn lal yàlla yàlla moo mën ne àddina moom ànd yi sa ndey sa baay de am na saa boo xam ne dafa amoon yaayam xéefar la woon waaye dafa daan jëfandikoo sàngara walla bon bu ko yaayam yónnee dana ko jënd jox ko loolu xàqam la ci àddina la am guma yàlla mu jox naan de waaye nag moom du ko du naan waaye sa nday mën na laa yónni loolu nga def ko waaye du waaye su fekkee lislaam la nag lislaam mayewu ko de lislaam moom su fekkee sa yaay jullit sa baay jullit la baay amul droit yónni doomam lu xaraam bu ko defee moom baay jama ngay bàkkaar yónni sa doom cigarette yaa ngi koy jàngal tux yaa moom te te yàlla duma yàlla dana ko duma duma de ko sàngara yaa ngi koy jàngal yooyu jullit waru ko yónni doomam waaye mbiru àddina yi daal maslaa àddina daal nag sa baay sa baay ak sa ba loolu mi ci baaxee leen baaxee ko rek muñ leen nag muñ nag lan mooy muñ leen nag lan mooy mu wax la nag lan mooy sëriñ de gis na sëriñ ak sëriñ sëriñ alxuraan réglé na ko de jëfandikoo nañu ko ñun ñoo ko nekk dégg rek lii mooy wax si mooy mooy sëriñ mu ne bi toppal sabila man anaaba yoonu ko delsi na jëm ko jëm si na ilay ci man mu ne nag yow boo bëggee wut sëriñ nag seetal ko ku jëm ku jëm ci nga topp ko ku jëmut ci yàlla foo doon bëgg a dem dakaar doo dugg oto bu jëm Tamba te naan Dakar laa jëm da ngay nax sa bopp yàlla na ku bëgg boo bëggee ñëw ci man seetal ku jëm si ci man nga topp ko loolu kon mooy sëriñ da seet ku jëm ci yàlla nga ànd moom di dox bu àggee nga àgg ànd moom la nga dox doo gisit ku jëm doo ku jëm ci yàlla nga ne ñoo ànd moom muy dox yow nga tëdd doo bu demee doo dem alxuraan dafa leeral lépp dafa leer boo bëggee xam sëriñ ci alxuraan rek jàngal laay kooku mooy sëriñ ku melu nii daal boo ko toppee dafa lay sànq rek Mouhamad Rafahi Mbacke yàlla na yàlla yokk wér maa ngi ko dégg muy wax benn jóg bu am solo wax mu ne koo xam ne def na xamu ci alquran dara ne kilifa ak diine la ñu ko topp ñu ko toppi xam nga ñun senegal ñun ñooy réew mi gën a neex ci réew yi ñun dañoo neex a neex a neex ba xam ne ñun jàpp ne ne yàlla moom moom moom niñ mel rek ne yàlla mel daal mooy da nga gis taxaw ni moom dafa jiite dara ci diine ji am ñu ko topp mu taxaw publiquement ne moom alquran xamu ci dara waaw la ci xam dara ñu andi curti purti rek ñu curti rek waaye anamu kooka dee na bu yàgg ñi ko topp dañuy dee bu ñëwee fa wa tabi sopp wa tabi toppal sabila man anaabal yoonu ko jëm ci ci man sabila man anaabal yoonu ko jëm ilay man de seetal kuy jëm si man nga topp yoonam ko defee saxaaba yi ne ci dellu jëm ci man mooy Ababakar Sadiq dellu na jëm ci yàlla de waaye ba léegi suñ mag ñu baax ñi ñoom dañoo dellu ci yàlla seetal ko mel ni maam borom Tuubaa radiyallaahu taala delloo jëm ci yàlla delloo lépp ci yàlla wax nit ñi dëgg di leen juliloo di leen xoorloo xamal leen ne leen man dey jaamulu leen yàlla seen bopp may may jaamu sama nag man nag ba àllaaxira ma xëy ndax bind naa ba wax naa ngeen dégg def naa ngeen gis borom Tiwaawan ni loolu la waxoon jàngal na leen diine ba mu leer mu waxal leen la jàpp la jub mu dajale mag ña jaawoon ne leen sama man ma man Malick bu ma yàlla nattoon lii ma leen jàngal leneen lu bokkut moom su boobaa ñaanal leen ma yàlla te sax ci li loolu may dëgg mooy yàlla yoon di suñu maam El Hadj Abdoulaye Niass mi nga xam ne moo fàkk lewul moo fàkk ñu seen gii moom itam dafa doon jàngal nit ñi di leen yar di leen yàlla waaye waxutoo leen ne maay seen yàlla waxu leen woon it ne leen toog leen di ma liggéeyal ba àllaaxira ma yóbbu leen aljanna déedéet fa leen tegoon ci siraatul mustaqim jox leen wirdo salaatul fatiha ne leen dee leen julli dee jaamu yàlla dee leen xoor dee leen jàng seen doom yóbbu ci daara yi jàng ku mokkal alquran mu teral la loolu ci mag ñi nekkoon fexe ba am métier rek maam alaaji fa doon bay bañ na ko ba bi ko bolakaar mayee suuf fii kaw la na fa ne ñun ay niti kaw kaw lañ nit ñàkk bay taax bolakaar ne ko boo toogee fii soriwut bu na jëm koosi ba nawetee nga bay bu nooree nga dikk ci biir di foraat du xam dara ngay xam noor ak nawet ndax ndax ndax tubaab moom seen problème mooy problème économie kooku teg nit yi nit yàlla moom seen ba yàlla waaye problème ko ci la bokk parce que maam alaaji fa daan nekk fi mu ne bi ba muy nekk Taïba Ñaseen daf doon bay bi mu dikkee fii it fa naweti koosi yor fa daara di bay di dundee di di dëgg ay sàqam di ko dundee waaye fasutoo nii ne di laaj hadiye di ko dundee hadiye kenn di ko dundee loolu ci la yoroon doom yi doom yëpp taawam ba ca caat ñoom ñëpp dañoo amoon métier maam xalifa mi nga xam ne moo fi moo saam gii dafa daan nawetu saam ak utoona moo tax ñu tuddee ko saam xalifa Cheikh Omar eh, Khalil Taïba Mbiteel la nekkoon nekk doy na dafa ay at yu bëri gannaaw ga bakar bi ñëwee mu dem Njawara alkaali am na fukk ak ñeent yool fay tool di bay di jàngale di nawetee ko ñëw gannaaw gi muy nawetee ko ñëw Alaaji Mor Seynabu ma nga woon kër Yoro Kojo di bay maam Safion rajo ma nga xoon kat biran jàng demet doomu ma laaj yëpp amoon métier dañ doon liggéey bi ñëwee fii Kaolack dañoo def transmission matière dañ daan segal li ñaan wax tubaab yi wax naan jamono ji naan matière parmi ñu def ko leneen dañ daan fab gerte gi di ko segal di jaay diwlin di liggéey ñe gi loolu moo fi nekk kon ab sëriñ dafay am métier ndax boo mun métier yaakaar posi nit doo leen mën a wax dëgg yaa ngi wax xalaat ne boo waxee kii boo liggéey du ma am dépasse te loolu te ma ajrin la alquran wax kon kon ab war a métier dañu war a am métier suñ bàyyi it yoolu lañ nekkoon ñun suñ bàyyi ga xam ne mooy borom barab bi yal na ko yàlla rahimahu la waradiyan anhu maasam fii moom itam njawar alkali nawen na fa nawen na Tayba Njuufeen nawen na Càmbeen da doon bay ay tool kon dañuy wuti métier buñ demee ba buñ bàyyee nañ fexe ba dëkk bi ñu dëkk taax yi ñu dëkk ñëw ci métier di liggéey di fexe nga wàcc comme ñëpp bu nit ñi ñu jóor ku ñu jox ñu jël ku ñu ñu ba su ko defee lu ko may rek la waaja waxoon la géwél ba waxoon war a wax lu dëgg rek liñ fiy nekkee te waaw mu ne nodd jot na kon ñu àggale daa daal jan daan laaye sëriñ bi toppal sabila man anaaba yoonu ku ñëpp ku jëm si ilay ci man ku koo xool jëm ne ci yàlla jëm mu ne topp ko baage nga su ma ilay topp ci man yàlla dong marjiakum mooy seen delluwaay yéen ñëpp ne ci yàlla ngeen di dellu fa unabikum dana mu xibaar dana mu solo bi ma kuntum taamaloona ca la doon la jëf de su ko dee kenn ku nekk la doon jëf yàlla dana la ko wax kon yow ak sëriñ bi yéen taalibe ak sëriñ bi yëpp na ngeen topp yoonu ku jëm si man ngeen àgg jëm ñu man xam leen ne jëmu leen fenn may man ngeen ci man yàlla bu ngeen ak seen nag kenn ku nekk la nga jëfoon ma fay la ko de ngay sëriñ ngay taalibe kenn ku nekk la nga la la yàlla fay ñu na ko bul bokkaale ak yàlla te seet booy topp daal toppal ku jëm ci yàlla boo bëggee àgg ci yàlla da topp yoonu ku jëm ci yàlla ku jëm ci àddina boo ko toppee da dem ci àddina kenn ku nekk rek ka topp fa mu jëm la nga jëm fa mu jëm nga jëm nag mel ba waxee doom ji loolu doom ji fa ne yow sama yow sama baay ndax bu fekkee man ba def naa bàkkaar mooy ne yàlla kenn suma nu ko yàlla xamee baa ji nag ne ko xamal ne ko xamal yàlla faru mu ne ko yaa bu ne yow sama doom inahaa na inahaa naka moom bakkaar ba in takku nem nekk na bu xamee ni misqaala habatin comme benn pepp bësi min xardalin ci bësi mag ñi xardalin ko dooxoon ndax pepp bësi moo gën a xaw a di ci ñoom ndax it ba ñoo ñoom ay jàngalekat la nii jàngal te bay jàngale ko jàngalam xam moo tax xardali boobu dañ ko firi pepp bësi de su fekkee ne mu ne mu ne la bàkkaar ba lu mu ndaw ndaw doonte pepp ba si la toll min xarit ba pepp ba si fa takkun mu nekk moom pepp ba ah fi saxaratin ci aw doj nekk ci aw doj doj woo xam ne ma ngi suuf suuf ci kaw asamaan aw fi ardi wala fi saxara ngir ak xóotu ngir ak suufeem lu mu nëbbu nëbbu aw fi samawaati ngir ak koy lu mu feeñ feeñ afiyaat wa dama ci kaw suuf yaa dana dikkee biha bakkaar ba allahu yàlla yàlla xam ne ko dana ko fay loolu benn firi la mu mel ni wërsëg la su na nam ñu ko taawil noonu yàlla ne yaa Luqmaan waa na doom ñi ne ko yaa bu ne yow sama doom inna naka sa wërsëg wi li nga xam ne sa wërsëg mur la in takku ndem nekk na moom wërsëg wa misqaala habbatin comme pe min xari li ci basi boo man fekkoon ne sa wër li nga xam ne sa wërsëg la yaa ko war a moom war nga koo jot war nga koo lekk bu toll ni ba basiit nekk ci aw doj aw doj doj wa nekk ci suuf si suuf si juróom wala mu nekk ci asamaan si wala mu nekk ci suuf si yaa ci dana dikk biyaa ci wërs pepp ba laaw yàlla de yàlla dana la ko indil de kon wërsëg jarut ñàkk jarut jarut jarut jarut ñàkk jarut ñàkk sa sa ngor de jarut ñàkk sa diine de mu ne ko përëbal wërsëg sa mu la jaaxal sa wërsëg wi fu mu mën a nekk yàlla dana la ko jox yaa ci bi rek jaar ko ci yoon rek Ibn baas nag nee na saxra bi mu wax maa nga nekk ci suuf si juróom-ñaareel sa ñu juróom-ñaari suuf juróom-ñaari déele suuf jëf fa fara saxra ba nekk boobu Ibn Abbas nee na mooy bala téere bi nga xam ne téere yàlla lay bind jëfi fujjaar yi saay saay yi seen jëf yu bon yi seen bakkaar yi fa la ko yàlla bind fa la ko yàlla def de jàng ko ci alxuraan la fii si jiini inna kitaabal fujjaar mooy jëfi téere bi yàlla jëfi fujjaar yi wa qudratu samaa yi mu ne doj woowu moo tax asamaan si di ne tax borom xam-xam yenn borom xam-xam firikat yi wax ne yàlla yàlla bimbine suuf si mi ngi ko teg ci aw jën am na boo xam ne ne suuf si jën aw jën a ko xenu jën woowu moo tudd nuun jën woowu nag ca am ndox la nekk ndox ma mi ngi teg ci kaw ab ab ab ab jën pak ba pak boobu mi ngi nekk ci kaw kaw gannaaw ak malaaka ñu ne manaaw ñu ne aw nag ñu suuf si aw na ko aw yëkku peenu yëkku wona ma nga taxaw ci kaw daj woowa doj woowu moom la Luqmaan wax nekku ci suuf nekku ci asamaan doj woowu ma ca fa fa yëkk doj taxaw doj woowu fekkoon fa la pepp ba nekk dana génn de lu suufe suufe yaati dana dikki bi yàlla bi yaati wallaahu de inna laaha naka yàlla moom latifun aji ñëweti la ci génne lu lu soob xabirun ku dañ ko pala de yàlla mu wërsëg bu dee bàkkaar la loo ko nëbb nëbb yàlla dana ko feeñal bu dee wasa wërsëg la it fu mu mën a nekk lum tuuti tuuti lum sew sew lum xóot xóot lum lëndëm lëndëm yàlla dana la ko indil de kon kon wërsëg jëru ñaaw ba yàq sa diine oto tuut bu rafet rek yaa ci bi yàlla yàlla dana ko indi de ndax ndax yàlla kat moom ku ñëwee ci la ci génnee wërsëg jox ko ko neex te ku dañ ko dañ ko pala de inna laa inna laa naka yàlla latifun aji ñëwee ci la ci génnee wërsëg ci génnee wërsëg woowu xabiluñ ko dañ ko bële dara ump ko de kon mu ngi noonu Luqmaan ngay waar doom ji ba tey kon sa doom ni mu ko bëgg a waaree mooy sama doom na nga fexe ba dellu ci sa borom bu ànd ak ñiy jëm ci yàlla nga jëm ci moom bu wërsëg taxa ndax sa wërsëg la rek danga ci yaa bu ne yow sama doom aqimi taxawal taxawalal asalaatu julli de gannaaw boo waxee laa ilaaha mooy tawhid mooy mandarga tawhid ay topp julli nag julli julli ci ponk lislaam wa aqimi salaata taxawalal julli yow sama doom del taxawal julli del julli ci waxtu yi fuñ noddee bàyyi la nga def jàpp dem julli ji bu la football bi dox sa diggante julli doomi jullit dafa war di julli de buñ noddee mu julli de parce que toujours ma wax leen bu ngeen di football ba téye timis ngeen lool ma leen yéen wóor leen lastum ka aadim leen nisa la yàlla waxoon yonent bi boo xamee maam mu tabax mu tabax jàkka tabax waroo xem ak ñi nga bu ngeen di football yi ngeen war a dem sangu dem dem bu ngeen mënta sangu ngeen ngeen raggu julli buñ julee pare na ngeen dem defi loolu de waaye di ba ñu nopp ngeen ngeen di loolu baaxul de yéen waa daara yi nga lu xamaa boo taxawee ne julli nag waa mun nga diglee ah bil maaroof yi lu baax de da ngay jul jullit melokaan jullit a nga noonu da di digli lu baax wan xa tereel anil mun këri ji lu bon de deel julli tey foor tool deel digli lu baax tere lu bon nga ne ko ah digli lu baax digli lu baax tere lu bon dey dafa dafa de dafa ànd ak de moo tax foofu mu teg boole ci muñ mu ne wasbir na nga muñ alaama asaabaka ci loolu mu ne nag booy digli lu baax di tere lu bon ah yàlla du la laal fëloor moom itam di rombee noonu boo bëggee taxawal julli wéetal yàlla digil ba tere bon dana am lu la ca lu la ca dal mu ne waaye lu la ca lu la ca dal muñ ko de loo ci góobee gar ko yaa maa ci loo jot li li lor yi lay dal dal ci digil ba tere ko muñ boo digil ba tere bon ci penc mi da nga bëri ñu la noonu da bari ñu la kontoor mu ne da waaye lor yooyu na nga ko muñ de du la wàññi dara was bir muñal ala ma asaabak ci la jot ci ay lor inna salika naka loolu muñ googu min asmil umuri bokk nañ mbir yu dëgër yi de taxawal julli digle ba bon mbir mu yombut de yàlla ci mbir yu la bokk kon muñ rek ci ay moo ci dimbale mu def wala tusahir bul suufeel xaddaka sa leex li naa si ñeel nit ñi de wala nga ne wala tusahir bul yëkkati xaada ko sa mbagg li naa si ñeel ni bur rëy rëylu ci nit ñi bu topp rek ko jàpp ne koo gis jàpp ne yaa ko gën waaw di rëy rëylu timpiñ timpiñu fokk ne yëpp yow waroo nuyu kenn yëpp yow rek lañu war a nuyu waaye waroo nuyu kenn am na dara am na loo xam loo xam ne ba ci duggee dañuy bëgg a dugal dañuy mujj dugal ci rëy da dem ba gis ne yow boo rombo nit ñi waroo leen nuyu nit ñee la war nuyu boo toogee ñëpp war a jog fekk la nga nuyu nuyu si la ne nga ne sogg soggoral fa nga ne sogg jox nit loxo bu baax sax doo ko man da ngay def sa loxo bi mais yaa gën nit ñi mu ne loolu yaa ngi rëy rëy ci kaw nit ñi de wala tusahir bul yëkkati xaddaka la say lex naas ñeen ñi bul rëy rëy ci nit ñi ndax yàlla bëggul ku rëy wala tam si bul dox fil ardi ci suuf mari aji tiitaru de bu nekk ci suuf si dox di tiitari tur timbiñ timbiñ di di xem nit ñi di tiitaru jàpp dox di tiitaru jàpp ne yow yaa yaa foor ndax ina laa naka yàlla laa yu bëggut kulla muxtaalin képp kuy sigirihu faqoorin ku di aji puukare a konde ci nit ñi de yàlla ne bëgguma koy dox di di tiitaru di jaay maana ba di tiitaru ci kaw nit de kon ma ngay bam ko waxee wéetal yàlla di julli def lu baax di tere lu bon ne ko ne muñ nag ca lor ya waaye bul ma tax a rëy nag bu rëy ci kaw nit ñi jàpp ne yow rek yaa baax yaa yore baax ya gën ñëpp ba ñëpp dañ laa war a sukkal ak ba ñëpp dañ laa war a fekk la wax bul mooy dëgg dañ laa war a jox ñaari loxo foo toll dañ laa war a màggal waroo nuyu kenn yaa ñëpp la nuyu mu ne bu rëy ci loolu de bul dox ci suuf si te di sigaréewu di tiitaru yàlla bëggul kuy sigaréewu ak a tiitaru de wax sit hmm? mu ne wax sit na nga digg doomu masi kay sab dox rek booy dox daal doxal dox booy am rek comme nit ñi doxee rek boo amee soxla waxul dem dox ba sab dox de wax du dammal ah min sawtika mu ne ko na nga dox doxam xem dox da nga jàpp nit nga rek comme nit ñi waaw jaam yàlla nga rek comme jaam ci jaam yàlla yi de wax du na nga damm suufeelal ah min sawti ka ci say kaddu booy wax it bul nekk di tërëree mel ni buy wax mel ni mbaam muy wax na nga di tënkal ñi na nga wax ju rek bul nekk di wax loo xam ne kenn di ko dégg waaye bu nekk bu nekk fii ne mën a mën a wax pare bañ a wax jàpp ne bañ a tee doo wax maa na ñu lay wax la nga naan ah, ba nekk foofu di jaay nit ñi leen nga waxal nit wax comme nit waxal waxi nit am na ñoo xam ne dañuy suufee seen kàddu ba ëpp nga ne bu ñu la bëggee wax seen soxla sax naan la ah, ah, ah, waxal lii la mu ne waaye bu fi nekk nag di tërëri wax ba ca kaw na nga digg dooma ci wax ji rek boo bëggee wax jox ne jox portable bi yooyu it yooyu yëpp ay protocole la baaxul nanga nga tam sa kàddu wax waxi nit na nga xemale say say wax ji de naan ankaral aswaati mu ne baat bi gën a naqari ci baat yi baat bi gën a sib sibu ci baat yi la sawtul hamiri mooy kàddu mbaam mu ne bul mel ni mbaam muy nga di wax di tërëri wax jo koo xam ne foo waxee rek xëy ñëpp dëkk bépp xeew nga nga critiqué nga critiqué ñëpp mooy loolu baaxul waaye bu fi nekk di sanantal baat di wax sa baat bi di wax ci boo amee soxla wax ko waxal waxi nit mu ne baat bi kàddu yi gën a sibi ci ban ci baat yi nag ñëpp gën a naqari ci baat yi mooy mbaam mbaam bu nga woon rek ñëpp tiit de sawti maar mooy saxeex mooy ŋaax alam tara xanaa gisul alam taraw xanaa gisuñ ñoom nit ñi ana laa naka yàlla saxara tàgg la kum ñaa leen maa fi samawaati mboolem li ci asamaan yi juróom-ñaar wa maa fil ardi ak li ci suuf yi juróom-ñaar xanaa doomu aadama yi xamuñ ne yàlla tiraanga ji mu leen defal defal ko kenn benn mi def de yàlla mooy ñu tàggatal li ci asamaan si yëpp ak ci suuf si yàlla ko tàggatal ci doomu aadama yi de ñu koy ñu nim nim ñu bëggee ñun ñoom doomu aadama bam ñu bindee bindal ñu juri kër yi bindal ñu ganaar yi bindal ñu kanaar bindal ñu xar yi bindal ñu bëy lu nekk bindal ñu ko yàlla lim def ci ko suuf si yëpp nit tax mu def ko ko loolu yëpp yàlla daj ko ci ñun kon kay buñ ko rewoon war ko dellu njugal de ndax liñ xam lépp ci moom lañ ko jëlee xoolal ndox mi ñu naan ndox ana kan moo kere ndox ndox kenn kere ko ñu koy jaay dañ ko génnee rek fa mu nekk di ñu ko jaayee waaye ndox moo yàlla ko kere bu yàlla indiwu doon ndox kon fuñ jëm te ndox mi ndox mi nga xam ne mooy ndoxam yàlla bi naturellement moo gën a yomb de boo jëndee gutag ndox goo xam ne vingt litres boo ko jëndee deux cent cinquante ñu ne cher te léegi benn parfum boo xam ne matul dara ñu jaay ko mille francs nga ne yomb na de te ndox moom mënoo koo ñàkk parfum bi ko nga koo ñàkk de boo ñàkkoon ndox am parfum sangoo fukki fan fan ak juróom parfum boo mën a xappoo du tee nga moo tax yàlla moomu dey war nañ ko sant de lim ñu defal kenn defaluñu ko waa asbaxa mu lewal ah? aleykum ci yéen moom yàlla ni am waaye xéewalam saahiratan ci lu feeñ wa baatin ak ci lu nëbbu yàlla moo leen lëwal ci seen kaw yéen doomu aadama yi ay xéewalam ci lu feeñ ak lu nëbbu xéewal yàlla yim defal doomu aadama doomu aadama mënu si ko lim doomu aadama mënu si koo fay doomu aadama mënu ko sant yàlla de moo tax suñ julli ñu julli yàlla ko war a naa jaamu yàlla defaluñ yàlla dara lim ba léegi li yàlla lebal mënuñ ko fay sax mbaaxam rek a tax mu ñuy dig aljana de yàlla ne ma wala war ci yéen xéewal yàlla yi yu feeñ yu nëbbu ñun ñëpp xam nañ xéewal yàlla yi loolu fu pas-pas boobu moom la jullit ñi war a fas wa mina naasi waaye nag am na ci nit ñi boo fooy sa na wax mina naasi rek xamal ne mooy ñi nga xam ne bokkuñ fii bokkuñ fa duñ yàpp duñ jën mooy ne génne ci yàpp wi waaye amuñ njëriñ ñoo gutit laal ñoo gutit a tolloo wa mina naasi am na ci nit ñi ah man ñoo xam ne yu jaaju dafay werante fi laay ci diine yàlla ji bi xayri xelmin ci amul ci lu dul xam-xam da ngay gis koo xam ne xamul dara ci diine ji waaye moo fi daqa werante nag dafay jéem a werante yow borom xam-xam bi ci diine yàlla ji tegul ko ci xam-xam de benn wala hudan tegul ko njubit moom xamul ba pare jubut bu ko werante ci diine yàlla tegul ci am jub wala kitaabin du tegeen téere mu niirin bu di ji leer de nga gis koo xam fay bëgg a dàkkanteeg yow borom xam-xam bi yow ustaas bi yow imam bi ci diine yàlla ji te amul benn xam-xam nag moom la muy rek ak xel mu neex xam tegul ci xam-xam tegul ko ci njub tegul ko ci téere bu leer xanaa kitaabu erreur wa isa qiila ne waxeef na lahum ñaa leen ittabi'u topp leen maan sallallahu la yàlla ko ci yeneen tom bi xaaloo ñu wax ñoom ñooñu di bal ñun bal bayil na tabi'u danañu topp ma waja naa la fekkoon nañ alay ci moom abana maam de suñuy baay de boo ne waxee lislaam nag bu leer yaa ne nag gëy lamiñ naa la ñun duñ jëgaani lislaam lislaam bi ñu xam ko ma ne ma Sénégal ma lislaam moom kañ la wàcc Sénégal lislaam bii nga xam ne mooy alquran ma Makka la wàccoon ci ngóor suñu wax yontu yàlla Muhammad sallallahu alayhi Jibril wàcce ko ca xaaru Hira ca ardul Hijaas kon dëkkul senegal fekk loolu la ñuy wax waaye loolu yëpp waxi ruube kat la Sénégal dafa bari ñuy ruube kilifa yi sax dañuy ruube yàlla yàlla naan la ñun duñ jëgaani dara ma laaj man maa ngi laaj question boo xam ne maa ngi koy laaj ñëpp ñi may dégg ma ñun luñ jëgaaniwut lan lañ jëgaaniwut ci li ñuy lekk li ñuy naan li ñuy sol wax leen ma ko ñun li ñun yi ñuy sol sax du suñ yëre maam pantalon yi suñ doom yi sol ak body yi suñ doom yi sol ak rob yi ñuy sol ci penc mi fu ñu ko jële suñu maam yi loolu la ñoo sol ma ne dañuy wax dëgg te yàlla tax te ñu bala ñu noppi fen baaxul yàlla bëggu tapale kon bu njegee ba ci wàllu ba ci mbirum diine koo xam ne moom jàngut diine jàngaluñ ko ko bàyyam jàngalu ko ko diine jàngalu ko ci ferul si ci sa boo boo ko tere woon fàtte sax mu yàqu ko boo toogee jàpp cérémonie boo xam ne cérémonie religieuse lañ ko tuddee mu naa ñun ñun jëg ñun ñun suñ mag ñi doy ñu jëgaani wuñ dara koo xam nga day ruube rek day ruube rek waaye waxu dëgg de moom la muy wax sa gëmu ko yàlla xam na te réew mi di fi nekk mi jëgaani ko ñun ceeb bi ñu añee sax dañ ko jëgaani bu bu bu borom ceeb yi gërë woon dañu am problème bañ nañ ko bi bi bi Putin Putin xama ndox boobu rek Amérique ba waa jooju Putin bi bi fi fi amee problème rek waaw ah, ah, soxna ba toor daa dem yalwaani ko daa dem ne ko may ñu benn du ko may du baax ñun <laughs> kon waxuma la kon ñu naan jëgaani kon mag ñi dañuy jëgaani wuñ diine loolu loolu waxi loolu du dëgg de taxawut ci dëgg boobu saa xëy bu ñu leen waxee tamit topp leen maa anzala laahu la wàcce na ko laahu yàlla xaalo ñu wax ñoom kilifa yooyu naan bal bahil na tame dañ topp maa wajan naa lañ fekk ay abaana suñu maam yi de ñun suñu diine maam yi doy nañu ana suñu diine suñu maam yi moom diine di diine yàlla la ñoom ci lañ nekkoon rek awalaw kaana doonte wala daw awalaw kaana doonte nekkoon na seytaanu seytaane ya doom di leen xoo de doonte seytaane wala xoo jëme leen safara dañ ko topp de ila asaabin ci mbug ila asaabi sa'iir jëm ci mbugalam safara ah loolu baaxut de ruube de lislaam daal mooy lislaam mooy diine ji baaxoo ba indi woon jële ko fa yàlla jibril jox ko ko alquran mooy alquran mooy téere bi yàlla wàcce woon ci yonent yàlla muhammad ñu koy jàng di jaamu di jàng di jaamu ñu koy jaamoo yàlla muy indi àttee muy ñu solution suñu aj suñ dund ak alaxira muy suñ dostoor ñun julli ñëpp ñu war coo topp war coo càcce ko lum ñu tere ñu bàyyi ko lum ñu digal ñu def ko war koo xàtteewoo ci suñuy mbir di ko xàtteewoo suñu diggante loolu mooy diine leneen nag comme xam comme jeneen diine juddu juddu yoo xam ne nag bokkut ak diine jooju nga xam ne jëggaanee ko nga nga téye ko soxla adepte waman islam akai anya vile wala islam baba wala islam baba islam wana ndafu wazwani kwa sababu صدق الله العظيم وبلغ رسوله المصطفى صادق الامين وعلى ما قال ربنا وخالقنا ورازق من الشاهدين اللهم ربنا تقبل منا قدم القران ورجعنا عن ما كان في من سوء او نسيان او تابي في كلمه ان ما تحظي او تحي او, أو, أو, أو سوق لسان di wax ne sid ya raqibu kulla xayrin fiina wa kulla aybin waarihi tafina la anta man axdatoo min ahli diwaani fatilka naja min sufli ijal ubaydaka daifa zalimi